waa match bi nag match bu rëy la parce que géwél yi lekko yi ak géwél yi torino yi mais dafa mel ni géwél yi torino yi ñoo man parce que ñoo dóoragun 3-0 ak boobu muy 4-0 4 bi à 0 4 bi à 0 dafa mel ni géwél yi torino yi ñoo man géwél yi lekko yi <laughs> <laughs> ki moy Mor Mor Tama teg ko Tama maga maga wow mak waw ada du yomb neena du yomb xam ngeen koo koy Mor ken du ko netali Abdou Diouf ngi ni Karim Pape Mbaye mi ngi nonu di Kubi, joxna ballon bi jili Fodé ballon pour Abdou Diouf 5 à 0. 5 à 0. 5 bi à 0. Pam Mbaye ngi 5 bi à 0. Laye Rose ngi ne dëgg bal bi pour di centre Laye Rose Laye Rose daa mel ni tëgg sawar bi la gën a man ak tëgg soirée Laye Rose mi ngi centre bal bi Yes, sir. songeng. Sanggup. 5 à 0 match bu reuy gewelu Torino ak euh, geweli leko geweli Torino ñoo dorogun 5 bi à 0 match bi nak bari na ay star ay ndanan te kat sabar yaang ngi si tëkkatu tama yi promoteur yi ñepp ngi si parce que xam ngeen ni Abdou Diouf mi ngi si mortama mi ngi si seybu mi ngi si domi Coombaay mi ngi si lairos borom leko promoteur bu mag CB à 0 6 0 pour Guéoulou Torino 6 0 6 0 6 0 Fodé ngi nii joueur bu mag bi batteur bi Tëkër Saar mooy Abdou Samba ngi nii Abdou Samba ngi nii Jile ngi nii waa Jili joueur bu mag waa La ngi nii promoteur bu mag bi ah La Rose ngaa indi gars ñu lay gagné <laughs> deuxième mi-temps di ko defar ba mu waa jeex na kon <laughs> waaw fii sa coomba a ngi nii <laughs> Pamba a ngi nii waaw. sama doomu ndey lay doon Pape Torino. waaye xale bi nga xam ne moo xam ci jamono Sénégal bëgg ko Italie bëgg ko sama doomu ndey borom <laughs> waaw lekk yaa ngi nii. mais pour en attendant. équipe bu Laye Rose baa ngi nii waaw sama gars yi. non bii moo tax ma wàññi ko parce que guñu nañ ma nañ ñu xaar. waaw deuxième mi-temps di nga dañ doon tàngatu rek. Ah? waaw yow moom de loolu mos a def nga ko. dañ doon tàngatu may dañu may tuuti. kon jeex na ñoo ngi nii si ñoo ngi nii si deuxième mi bi. Euh, waa Lekoy nee nañ dañuy remonter ah mais je crois que ne 6 bi à 0 neexut a remonter ballon pour Pape mbay jox na ko Fodé Diallo dafa mel ni daal géwlu tournoi ñoo man ñoo man gars yi Pape dëgg na bal bi jox na ko ab Diouf jox na ko Abdou Sambou. Jili Raka bi gañu na kok mi ngi nek doomu ciombay ciombay bi won Rimbax papa ñepp ko xam papaam mo tay mu nekk waykat bu mag fi ci sabar bu mag mag mag. La Rose jël na bal bi pour tirer arbitre coup franc la wax wala penalty. franc bu placé la en tout cas. à côté, bien tiré, mais à côté. Ndiagambaay libéro baa ngi dëgg bal bi Abdou Karim libéro jox na ko Abdou Diouf Seck doom baay mbool Seck Family, family. Vai, boy. Boy, come here. Come here. Oh, oh. mais match dafa le deuxième mi-temps serré parce que bi, amagul deuxième mi premier mi-temps 6 à 0 mais deuxième mi-temps pour l'instant 0-0 là. en même temps match bi dafa balancé. Good. cinq bi six à un deuxième mi bi dafa mel ni la ñu ngi commencé yeewu deuxième mi-temps bi Lecco moo ko moom ah deuxième mi-temps bi Lecco moo ko moom dafa mel ni lii laa roos waxoon mi ngi bëgg a am deuxième mi-temps day remonté. laay. 6-3. 3 Torino 6, Lecco 3. bi bii nii nag euh, wa Torino ganyanan wa